seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang tàmbali yër yéenekaay yi ak yéenekaay bii di enquête ne jamono yi tàng na jëpp ndax nag ñii di syndicaliste yi ñu ngi koy tàngala tàngal ba mu saf sàpp euh, wax ma rivalité bi ci am politique nag est-ce que neewul sadaax dugg ci biir syndicat enseignant bi nga xam ne ñu ngi wéyal yëngu-yëngal bi jëmale ko ci nguur gi ndaxte benn semaine a ngi nii ginnaaw ba njiitu réew mi dajale ak seen di syndicaliste yi waaye ba tey jii G6 ñoom ñi ngi xuy xamaj kenn xamul ban taxawaay lañu am ndax dañuy lever wala dañuy wéyal seen mouvement de grève fédère moom ca boppam yëkkati kàddu ne Idrissa Seck lay jàppale lu mën a it ba dee si biir yenn kaay bi di l'Observateur Mamadou Diop Decroix ne réew mi dictature moo fi nar a ñëw ci anam bu jéggi dayoo moo tax ci biir yéenekaay bi Les Échos IED ne léegi fi mu nekk nii front de résistance nationale dafa jot plan d'action national lañ fas yéene amal Y'en a kenn duñ ma ci kàcc dama ciy bokk ba mu baax ndax na fi mu nekk nii xeex dafa jot Malick Gakou ci biir yéenekaay bi L'Observateur génne programme am di wane nan la fas yéene duma kii di Macky Sall ndax nag moom jàpp na ne programme am 66 axes prioritaires 42 engagement nguur gi nu muy dundee dañ koy wàññi lu baree bari supprimer bourse familiale yi ak tamit yenn kuréel yoo xam ne lekk alalu réew mi rek. lañ fi nekkee procès imam Ndao la ñuy dem ak yenn kayit bi l'observateur dañuy wax ne ah am na daal ay témoignages yu doy waar yu xew démb ca procès ba Kati Baba moo wax moom ci boppam reconnaître na moom spécialiste char de combat la te xeex na ci wetu bokk aram te tax bokkoon na ci xeexu Goza bi ca Nigéria yenn kayit bi la quotidien jihadiste bi de moom. taqal na Imam ndaw bu baax a baax Ibrahima Diallo ne fi mu nekk nii dem naa ñetti yoon ci Imam ndaw jox toll ci juróom million moom xam na ko man xam naa ko Mohamed Ndiaye dëggal ne waaw li ñuy wax moom am na ndax man xeex naa ak waa Boko Haram yéen kaay bi la quotidien ne donte nguur gi jël na sax ay matuwaay syndicat santé na ñoo lànk ñoo bañ seen mot d'ordre de grève dañ koy maintenir nguur gi alal lay wur xaalis amatul dara dafa mel ni dafa daanu yéen kaay bi di laas ne dañoo bloqué compte ArcelorMittal ndax redressement fiscale bu un milliard xanaa ñu gësam Cheikh Kanté ngir dara rot yéen kaay bi Les Échos ne Mamadou Lamine Diallo mi ngi laajte kan mooy protéger Cheikh Kanté looloo ko jaaxal kii di Awa Gueye vice présidente assemblée nationale 2015 ba tey jii mi ngi yoreel bijouterie La Rotonde 3 millions ci ay koppar nangu na ko 900 000 nag. 2015 ba léegi fayu ko ba pare nag di tàng xam buñ ko woowee du jël nangu na nag ne dina fay bor ma Massata Diack ñu ngi koy tuddaat ci wàllu corruption ñu ne Jeux olympiques d'hiver 2018 yii kenn geru ko ci ngir rek mu def la mu def jox ko ñoom ko jox jërë ngeen jëf ci léegi mu ne la